dagan na te mi ngi am dagan na te mi ngi am charia maye na góor gis jigéen euh, wax ko yëg-yëgam ak bëgg-bëgg ci kaw mu tege ci fulla ak fayda ak farata jigéen ji gis ki mu bëgg wax ak moom ci li nga xam ni mooy fulla farata ak fayda ci ne wax ko yëg-yëgam wax ko ne da koo bëgg te jubluwaay bi mooy ñu fonde famille jubluwaay bi mooy ñu ànd jaamu yàlla donte li gën a bëri ci góor lay jóge jëm ci jigéen parce que jigéen day xaw a diis ci moom souvent mu mu jékki-jékki wax ku ko góor mais ku góor ki bu amee xel des fois ku jigéen ki du ko wax carrément mais day manifesté wu ci ay manifesté wu jigéen am nu muy manifesté wu des fois appel yu bëri des fois message yu bëri des fois yeneen ak yeneen yoo xam ni après yow boo tegee say analyse ni ngeen di def boo ko thèse synthèse antithèse ko résultat bi li mu lay jox moo résultat final bi lii lay nekk résultat final bi lii lay doon moo tax des fois day xaw a diis ci ku jigéen ki mu jóg directement wax mais day am ay introduction yi muy def introduction bi nag boo moytul mooy gën a gudd développement bi waaw léegi nag introduction bu gudd a gudd a gudd boo xam ne après daanaka du def développement parce que introduction bi mooy gudd mais dagan na mais mu tege ci ca cadre bu légal ba léegi wallahu taala alam